yeneen gox yi nekkee fii ci senegaal dakaar li muy taw bariwul waaye àllarba ji ci diggante ñeenti waxtu ci suba jàpp juróom-ñaari waxtu dakaar ci taw la ñu yeewoo bu ñenn ñi amul fu ñu jaar ba ñu liggéeyi ñeneen ñi ñoom jéem nañoo doxi seeni soxla waaye ñoom ñooñee am nañ ci ay jafe-jafe bu baax. en tey moom métti na trop parce que depuis 7 maa ngi génn. Euh, aw ma yoon bu ma jaar dama mujj di def dagg-dagg di jël oto dagg-dagg ba mën a retrouver wu fii nii. mu jógee Kër Mbay Fall wutali Castor cliente bii di lu taxawaayu chauffeur yi ci lu ni mel su amee. metti na parce que taxi yi nanguwuñoo ñëw Castor bus yi tamit postu Caaroy la ñuy ak yam ndax euh, embouteillage bu bari ndox mi bëri na lool moom. ñu fekk ko fi ñuy xaaree client dawalkat scooter bi xam ne lu ni mel seen gafa yëg na ko bu baax dikk na it ci ana lan moo waral ba client yi bu tawee du ñu jël càq cak loolu kay sonn nañ trop sonn si wàll li wax dëgg yàlla yoon bi baaxul te teer bi xam nga ndox bi day bëri si yoon bi. boo mayee nit ki xoo mu jàll mu mun a dem voilà boo ko mayul nag fekkee tombe ndox bi am na. kooku mun nga koo sangu mo lii ma dem man mi benn oto kero damaa ñaw feree ne nii pour may ko mu jàll ma feree ba mu sedd mu ñëw sang ma dem yoonam. mu daal di gaare otoom ndax amul pexe chauffeur bi moom am yaakaar ne fii ci kanam dina mën a dooraat ay yëngu-yëngoom. non tey liggéey dañu waaye amul quoi ndax taw bi ndox mi doo am doo yoon boo jaar foo jaar ndox kese la te ndox bi day yàq oto. seen yaate day bënn seen li si. moo tax daal ñu gaari ni daal taxaw xaar mu mu dal. li ko kuréel gi ëmb lépp lu jëm ci wàllu aviation civile ak météorologie ay taw yu bari lañu dal di gis ci ndakaaru ci guddi talaata jàpp alxames mu ngi xam xamle tamit ne lu ni mel dinañu ko nemmeeku dibéer ji yemook ñaar fukki fan ak ñeent jàpp altine ñaar fukki fan ak juróom ci weeru septembre.